nit moom tant yaa ngi dund mhm. donc euh, lu ne mën na la arrivé te benn affaire bu la xasee ba dal fexeel bu mu la dalaat rek mhm. parce que euh, siiw mën naa ne li ma siiw la moo tax euh, mu demee noonu mhm. parce que bu ma kenn xamul kenn du ko xam xëy na ñu ma bokkal koñ rek ñoo koy wax après mu jeex sama doom nag dafa nekk nit koo xamante ne ku mu bëgg la sama biir xol mu nekk xale bu doylu xale la xamul dara mais dafa doylu mm-hmm. waaw to Sunugal 24 mbégteeg bànneex la ñu am ñëw ci émission gise bi tey gise bi dafa dalal ndaanaan ndaanaan boo xam ne immense plaisir lay am pour présenter ko parce que elle a quitté ce qu'on Fuladu pour venir ici à Dakar faire ses preuves ci benn compétition buñ naan seen petit gallé fa lañ ko xamee muy talent buñ détecté foofu ensuite elle a lancé sa carrière lancé benn vidéo boo xam ne de se rendre hommage son papa euh, ci li nga xam ne moo di langue maternelle baabam après loolu xale bi gisatuñ ko mu réer xamatuñ fan la féete jékki-jékki elle a signé un big comeback j'aimerais bien dire un big comeback pour remercier et montrer sa valeur en disant que dina baax donc nag sans pour autant tarder ami internaute Sunugal 24 damay bàyyi moom mu présenté ñu wax ñu moom mooy kan ñu découvrir ko ensemble nuyu naa la soxna si. fay naa la Ama. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu may setaan di nuyu samay fans mi no sar mi no waa Kolda ko moƴƴi wona seeram di la jaajëfal aussi ci invitation bi merci beaucoup. ñu toog a band mu ngi nuyu waa Kolda ci làkkam. jéy naa balaa ñuy dugg gën a xuus ci débat bi ci waxtaan bi dañuy dellu ginnaaw tuuti ci maanaam ba nga jógee Kolda ñëw ci compétition bi nga xam ne seen petit gallé passage boobu nan la demee. waaw euh, aventure la woon. Mhm. voilà te tamit musique nekk loo xamante ne sama passion la donc euh, bi may commencé yàlla def ci seen petit laa commencé te nit ñi fa lañ ma njëkkee xam. bi ma fa jógee nag après si laa décidé def sama carrière mhm. voilà naa duggee ci sa carrière nan nga ko analyser si peu de temps bi nga def musique bi nga commencé quitté daal ñëw Petit Gallé ak yaa ngi sa deuxième vidéo dina baax nan nga étudier loolu parcours boobu euh, parcours bu metti la woon mhm. metti na mettiwul daal mhm. mais sant yàlla parce que nit ñi moom nit moom tant yaa ngi dund donc euh, lu ne mën na la arrivé. Mhm. mais nag ñoo ngi sant yàlla bu baax baax baax baax dëgg la toogoon naa benn moment parce que benn single laa jotoon génne. Mhm. voilà am ci lu ma nekkoon. Mhm. bi ma ci génnee aussi fas yéene ñëwaat def sama comeback génne naa d'ailleurs son bu tudd yaay. boo xam ne sama yaay laa ci woy rendre ci hommage Ablaye Mbaye ak euh, dina baax. d'accord comme ni nga ko waxee y a des moments de haut et de bas bu ñëwee tuuti xam nga boo nee comeback maanaam ku demoon la ñibbisiwaat. lan moo waraloon comeback bi euh, kii bi pause bi ak nan nga diagnostiquer situation parce que de nos jours c'est pas facile quand nga jékki-jékki bàyyi musique nga def benn pause nga ñëwaat temps boobu noonu temps d'arrêt boobu jéy naa naka la ko dundee ak situation bi xewoon ci kawam. waaw ku ne na ku ne xam na ni euh, Covid 19 bi yàgg na fi. Mhm. donc ba léegi nit ñu bëri artistes yi sax je peux dire. Mhm. Euh, bu ñu doon def ay événements aussi arrêté nañ. Mhm. te foog naa ni euh, corona bi mhm. li mu yàq musique moo ci gën a tuuti mhm. donc loolu bokk na ci li ma euh, tardeloon tuuti mhm. ak benn affaire boo xamante ne mooy loolu jaruma ci jaaraat donc euh, ma nekk ci sama bopp di liggéey ba heure génnee jot ma génn loolu la woon rek d' accord jey naa nga ne jarul jaaraat parce que tey jii modèle nga à génération âge bi nga toll ce que t'as surmonté du ku nekk ko mën a surmonté et donc bagage yi nga jaar maanaam force bi nga am ak euh, dal bi nga am ba surmonter cela internautes yi koy déglu ñi nga bokkal génération aussi c' est bien boo nga jox leen secret bi jey naa amoon na fi incident bu ko dal Euh, par rapport ak euh, le doyen Diop Isaac donc mu jël ko avec bravoure ak jël ko ak fermeté ak maturité ba surmonter ko est-ce que mën nga ñëw ak ñun un peu ci étape boobu par rapport à la génération bi lay seetaan xam secret bi ak ñoom it conseil bi nga leen mën a jox à cette situation. waaw mën naa ne livre la woon rek. Mhm. te livre bu ne am na chapitre lu dëkk mhm. donc euh, liir naa ko ba passé ko. Mhm. te jàngaat naa ci loo xamante ne dina ma servir lu bëri lu bëree bëree bëri bëri. tamit di leen wax ni que yàlla jeexul. nit ak lu la mënti arrivé da ngaa war a gëm yàlla. nga gën a ñafe. gën a xam sa bopp. te benn affaire bu la xasee ba dal fexeel bu mu la dalaat rek. parce que euh, siiw mën naa ne li ma siiw la moo tax euh, mu demee noon parce que bu ma kenn xamul kenn du ko xam xëy na ñu ma bokkal koñ rek ñoo koy wax après mu jeex. mais bon sant yàlla bu baax a baax a baax parce que musique bi man maa ko choisir nekkul luñ ma forcer. donc luñ ma ci mënti waxal aussi dama koy nangu. gëm ci yàlla bu message est fort ñun ñoo ko déggandoo par rapport ak li mu jox léegi ñi nga bokkal génération et pour balaa ñuy euh, dugg ci li nga xam ne mooy si sa position par rapport à la musique actuelle par rapport à ta génération mais tey yow sa relation ak Abiba vous êtes de même génération les sida am na sentir nañ que ne ba ba mu ñëwee Kolda yaa ak accueilliroon ba relation la naa am ak Abiba instant yi. waaw relation yu baax ah. Mhm. Mhm. sama maa ngi koy bu baax baax sama sista la. Mhm. donc maag moom ba léegi amul wax ak tontu. ñoo ngi ci jàmm ak salaam ci li ma bàyyi woon. voilà d'accord ñu ngi ci jàmm euh, par rapport ak li mu woon wax la nopp koy dégg léegi jay naa bu ñëwee par rapport ak li nga xam ne mooy rivalité bi am maanaam intensité bi am seen génération jay na jay laa soxu abiba astar amira abet seen bi boobu mel ni Angleterre nan nga koy dundee yow. waaw man mën naa ne musique bi ñun ñëpp ñun xale yi ci nekk mooy ñi nga lim ni mhm. ku ci nekk am nga say fans bopp. Mhm. ku ci nekk am na ñoo xamante ne ñoom ñoom dañ laa bëgg. Mhm. donc foog naa amul concurrence. suñu diggante. ku nekk na nga liggéey rek jéem a ñafe roy ci mag ñi fi nekkoon parce que ku ci nekk yaa ngi def sa carrière mooy comme tonton Youssou Ndour. Wally Seck Sidi Diop ak. Mm, ñi fi nekk daal. Mhm. donc ñoo ngi liggéey ñoom fi ñu reyante mooy def son bu baax ak clip bu baax génnee mhm. ko. Mhm. donc ñun foog naa man moom jàppee ko lu saturé ko voilà parce que américain ñoo ngi nii foog naa boo leen dégloo da nga naan seen dëkk yëpp ay waykat lañ. te alors que ku ci nekk yaa ngi def li ngay def. seen génération bi ku ci dàq way. ii ñoom ñëpp a mën a woy nag franchement. Eh, eh, wax ma <laughs> génération non ñoom ñëpp ku nekk am nga sa fort. moo tax. xam nga tey boo dégloo Amira. Mhm. lim lay jox bokkul mhm. ak li la Asta di jox. bokkul mhm. ak li la Dieyla di jox. donc ku ci nekk mën nga leen déglu. cent ans wax na wax nga ko euh, da ngeen di ci mag ñi tey ngeen gis mag ñi am benn ring maanaam benn jàmmarloo bu métti bi am entre di Diop ak Wally seek yow ngay nouvelle génération gis situation boobu ban analyse nga ci def par rapport ak loolu noonu. waa di leen wax ni que ñun ci ñoom la ñuy roy. donc lépp lu ñuy def nañ ko xool bu baax a baax. Mhm. voilà te musique sénégalais foog naa ñoo ko war a jox valeur. Mhm. ñoo ko war a siggil. Mhm. ndax euh, comme tonton yu papa Youssou Ndour. Omar Pène ak ñoom Ismaïla def nañ fi seen carrière. ba jamono yi ñu toll nii kenn déggu leen ci yooyu. te tamit fans yi mën naa ne lu ci ëpp ñoom ñoo koy créer. xëy na ñoom entre ñoom suñu tasee. dina jàmm ak salaam moo nekk seen diggante. donc nit boo xamul situation nu mu demee na ci tey rek. voilà ñu jéem bu fekkee dañoo xuloo ñu jéem leen a jiboole rek. mu mhm. jeex mhm. parce que Waly aussi ak Sidy Diop dañoo mën a way. Mhm. donc euh, boo dégloo Waly bokkul ak li Sidy Diop di jox boo dégloo Sidy Diop tam bokkul ak li la Waly di jox. donc foog naa amul xeex amul xuloo. yow koo féete. non man ñaan ñoom ñaar yëpp laay déglu ah samay frère lañ. ñoom ñaar ñëpp ngay déglu que nga foog ne musique bi nekkul di jël euh, ci benn kii ni topp li nga xam ne moo di rap parce que boo gisee euh, Waly Seck ak Sidy Diop ñoo génnee son. génne ñoo ko même moment Astar Abiba pareil ñu lancé ndoo clip même jour même heure yow ban analyse nga ci def loolu est-ce que coïncidence la wala nu mu demee noonu. waaw loolu man mën naa am coïncidence la hmm. waaw tamit bu nekkoon tamit lu ñu wax waxante tamit. Hmm. du dara parce que ku ci nekk am nga ñu lay déglu. Hmm. comprendre te loolu day mu ngi mel ni classe rek. yaa comprendre parce que kii mën na jël premier kii jël deuxième. ki ki taamu di jël premier ki jël deuxième tout le temps day bëgg moom tam jël premier. Mm-hmm. donc noonu la. Mm-hmm. bu ñu génnandoowee ku ci nekk di nga xam yow. Mm-hmm. fi nga fi fi sa niveau tool ak sa degré fi mu toll ci nit ñi loolu la rek. de Dina Baax inspiration bi nan la dikkee ngay def comeback ba nga defee li nga xam ne rendre un vibrant hommage ak euh, ki nga xam ne moo di lay mbay li mu woy ci yaayam nga bàyyi foofu nga ñëw ne damay def un vrai comeback le comeback Dina Baax la. pourquoi dina baax ak fan la la idée dina baax jóge waaw dina baax nag man ni ma ko jëlee lu simple la mhm. parce que nit ak ci lu mu mënti doon muy étudiant bi jaaykat bi euh, loo gis si àdduna bu mettee dina baax mhm. donc boo jàppee loolu rek doo sonn sa mhm. àdduna ma am ma yàgg idée bi amoon naa ko yàgg na avant sax lii di am donc mu nekkoon occasion pour ma def ko ubbee ko sama comeback mhm. ma ànd ci ak Bril muy sama dañuy collaborer maak moom mhm. ñoo ngi liggéey mooy moo may produire mhm. donc ak Bastoun ma koy remercier waale moom tamit ak euh, benn rappeur bu tudd Dia ak sama frère ñu xalaat ci lii benn jour lañ ko def ñu xalaat idée bi après ñu bind ko Bril def musique bi ñu enregistré ko mu réussir nag nit ñi ku ci nekk di ci gis sa bopp bu mm, baax baax mm, mm, voilà ma ci sant yàlla bu baax di leen remercier aussi ñoom ñëpp une mm-hmm. belle chanson plein d'enseignement et pleine d'émotion ku ko dégg ku nekk da lay motiver da lay encourager pour montrer que la fille n'est pas juste une petite fille qui est là à savourer mais à donner des impacts à faire un impact dans la société sénégalaise mais à montrer à la nouvelle génération qu'elle fait des partie des euh, modèles et des exemples à suivre. C'est une fille pétrie de talent. La musique a besoin de toi et on espère te voir au sommet de la musique sénégalaise. na dafa signer dans un label de production voilà. waaw maa ngi euh, liggéey ak Bril. Mm-hmm. ñoo ngi liggéey. Mm-hmm. voilà maa ngi on le salue de passage Bril Fayeti Fo ñu ngi ci émission gise bi eh, ami internet Sunugal 24 nee naa leen saa su nekk nii lañuy def dañuy dem seeti ndaaraan xool ci li mu mëne fan la toogee ak nu mu toogee du ñëw ci émission gise bi te duñ séentu parce que séentu ak saytu la maanaam buñ séentoo dañuy xool bu ñu saytoo dañ koy diagnostiqué ci au plus profond de notre cœur Dieyna on va entendre la voix qu'est-ce qu'elle dégage nit de nangu ndogal lu mënti am yu santal jógal say rongoñ fompal lu am yàlla la nit de nangu ndogal lu mënti am yu santal jógal say rongoñ fompal lépp yàlla la dina baax góorgóorlul dina baax bul déglu waxi noon dina baax gurgurlul dina baax bul faale waxi noonu. macha allah la voix est là nee naa la baat bee neex macha allah bu wooyee da ngay kontaan jëy naa ñu ngi ci li nga xam ne moo di février. buñ ne février xel yëpp dem ci le 20 février muy sa birthday. daaw am na loo ñu xawoon ñamal gisaatuñ ko. est-ce que mën nañ xaar Dieyna dara mu jox ñu benn exclusivité si li nga xam ne moo di ci anniversaire la non loolu moom incha allah surprise lay doon nañ xaar lépp sama jour anniversaire moom am na luy génn hmm. waaw ñun doo ñu ñamal jox ñu exclusivité lan mooy génn la 20 dara xewul am na luy xew ami internet sunu gaal 24 am na luy xew le 20 dara xewul c'est l'anniversaire de la diva nañ dem abonné sama chaîne YouTube. Mhm. ak sama compte Instagram YouTube euh, Facebook ak TikTok. Mhm. ñu xaar foofu. ñu xaar le 20 février. jëy naa nu doon <laughs> rendez-vous le 20 février. bi coïncider ak li nga xam ne moo di anniversaire am. en tant que porteur de voix nan nga analyser ak ban message ngay jàllale ak situation actuelle dëkk bi avec le Covid 19. ñëpp sax di ñaaxaale sa bopp. Mhm. ñu respecter mesures barrières yi. Mhm. xam nga parce que corona bi lu am la lu existe la. Mhm. ñaanuma ya ñaanaluma yàlla kenn nag mu teg ci bëtam. mais bon nañ ko xeex mu jóge fi gaaw ndax sonal na nit ñi. kenn liggéeyatul kenn dematul concert surtout ñun artistes yi da ngay investir lu dul jeex mais doo fayee ko waat. donc euh, nañ ko xeex daal ñu respecter mesures yi. mu gaaw jóge fi. Dieyna elle n'a jamais prononcé ci li nga xam ne moo di petit prince bi ko yàlla jox. kañ la gis le petit prince <laughs> ak ah, moom en tant que mère naka la dundee loolu ban affection ban amour lay dégager envers son enfant waaw ndeysaan sama doom nag dafa nekk euh, nit koo xamante ne ku mu bëgg la sama biir xol hmm. mu nekk xale bu doylu xale la de xamul dara mais dafa doylu hmm. waaw mu may euh, saa yu ma koy xool damay kontaan su ma génnee sax yàgg tuuti ci biti dama mm-hmm. koy namm bay bëgg a dee. Mm-hmm. donc maa ngi koy ñaanal yàlla mooy ko gudd fan ak wér gu yaram. Mm-hmm. voilà bu waree génn nag dina génn incha allah mais xam nga wax baaxul ak. Euh, te xale moomul réseaux sociaux. xëy na man la yaayam def ma siiw nekk ci réseaux sociaux yi. mais bon moom yàlla moo xam li muy doon ëllëg. donc duma ko dugal ci réseaux sociaux yi. di est-ce que ñaan nga sa doom def musique. non man nag souhaité souhaité wu ma ko. Mhm. mais bu dee nag bu màggee bu fekkente ne yàlla loolu la def ci moom dinaa ko ci ñaanal tamit. Mhm. ndax man bi ma bëggee musique sama yaay daf ma bàyyi mhm. ñaanal ma ci. donc moom bu màggee bu fekkee loolu choisir dinaa ko ñaanal bàyyi ko ci bu dee nag man li ma bëgg mooy mu jàng nekk leneen. je pense que ne tey jii doom nga yaay nga parce que émission bi émission de divertissement la émission de partage la. mais émission d'éducation la nga nekk doom di yaay ñi nga bokkal génération ñi nga xam ne dañuy door seen yaay mhm. di métital seen yaay mhm. du ñàkkal fayda seen yaay ban message nga leen di jàllale yow en tant que mère affection bi ngay dund amour ak sa doom mais en tant que doom tamit am yaay lan nga mën a ñoo ñooñu nga xam ne ñu ngi dóor seen yaay di métital seen yaay waaw loolu foog naa ku koy def rek sa xel tamit boo amee xel xel bi matul mhm. parce que nit tey man bi ma amee doom mhm. laa gën a fonk sama yaay mhm. parce que ak ku njureel dafa fort beneen bi mooy ku ci nekk ñaan nga yàlla sa doom mu obéir la bu màggee nekk ku la bëgg jege la donc euh, nañ jàpp suñu yaay te ñi fi nekk deseeg seen yaay nañ jàpp ba mu dëgër ñu satisfaire seen yaay ñaan ñu ñaanal leen ñi seen yaay décédé nag maa ngi leen di ñaanal yàlla fi ñu jëm gënal leen fi ñu jóge mm-hmm. voilà man sama doom daal man mm-hmm. dinaa ko fonk maa fonk naa sama yaay mm-hmm. looy woyal ci yaay loo ñuy woyal ci yaay yi yaay booy tey ma woy laa ndax lii nga daj ci maan mama faw ma sargal laa ndax danga sonn ci maan ak ku njureel lool yaay aw mas faay yàmm yar ba ma tool ni taay yal na la yàlla faay ñoo ko déggandoo képp ku am sa yaay muy dund tatagal ko te jàppale ko te xam ne yaay dara du ko dab ci àdduna jëy na projet yi lan projet yi waaw maa ngi liggéey nag maa ngi studio maa ngi chaque jour que Dieu maa ngi studio ñoo ngi waajal affaire yu doy waar ku ci mel ni sama grand Kouroumanji Mori maa ngi koy nuyu bu baax a baax Blé. Mhm. xaritam ak Cheikha. Mhm. donc ñoom ñëpp ñoo jàpp sama combat bu baax a baax baax ñoo ngi liggéey nag lu doy waar incha allah. Mhm. du leen wax lii la nag wala lii mais restez connecté. la vingt am na luy génn incha allah. moo xam lu mën lu ngeen mënti xalaat nag jàpp leen loolu. incha allah voilà. ci 2021 mën nañ xaal album wala. mais bien sûr bien hmm. sûr man xaaruma de. avec des futurs bu ko bu Covid amul woon sax mënoon nañ xaar grand théâtre. day ka la nax dafa gëm boppam nag. lii moom a neex ci xale bi nee naa la c'est la fierté de Fouladou elle est pour faire ses preuves te c'est une fi pétrie de talent mais aussi une fille boo xam ne très sociale et très serviable moo tax ma ne nañ ko bàyyi xel j'appelle à tout le monde ñu jàppale ko teg ko loxo pousse ko ndax jeune talent yi ñu ngi fii et ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci musique bi ñoo leen mën a may loxo te c'est une fille exemplaire elle a beaucoup surmonté pour arriver à ce stade elle n'a jamais abandonné et on espère le voir au sommet Dieyna lan lay tàggatoo ak ami internetu Sunugal 24 waaw di remercier ñëpp ñëpp ñëpp àdduna yëpp gis naa support bi gis naa aide yi tamit. Mhm. voilà ak ñaani tamit maa mhm. maa ngi ci sant sama bopp bu baax baax. Mhm. di la remercier bu baax baax ak sa équipe ak sa caméraman bi nga àndal. ci euh, seet si bi ngeen ma seet si tey. di remercier euh, sama yaay ak sama papa ak sama famille yëpp yëpp yëpp yëpp. di remercier jaw Ketchup. Marie Louise. Bril ñu jàpp sama dañoo jàpp sama combat. di remercier Awa Caramel. Euh, Kermel. Mhm. Euh, waaw di remercier Jules Fashion sama tailleur bu ñaawul boobu. Mhm. di remercier ñëpp daal ñi nekk sama ginnaaw voilà di remercier sama doom di ko bis bu baax a baax a baax. Mhm. Euh, su ma limee damay juum daal xam naa. naa bàyyi noonu. <laughs> kenn mënul dajal mais l' essentiel c' est de faire le maximum ami internaute Sunugal 24 tey ñu ngi woon ci émi émission gise bi. dalal ki nga xam ne ndaanaan bu kenn dootul présente ci li nga xam ne moo di musique ma ànd seeg mon ami moo frère sama taalibe baay bi de Saloum le meilleur de meilleurs le meilleur de sa génération l'homme Biggi tey nag ami internet Sunugal 24 gis ngeen ni moo dikkee rek yaram bee xaw a jagadi rek moo tax ma dikkee ci bi façon mënuñ def te ñu ñëw seet ci suñu jigéen suñu rakk suñu xarit on lui donne notre soutien et espérons Elle va être parmi les reines de la musique sénégalaise. On vous donne rendez-vous prochainement inchallah ci émission gise bi ak yeneen i ndaanaan ñu génn ci yeneen i façon rek ci yeneen i fem restez connectés c'est Sunugal 24 le site internet qui vous donne l'ambiance qui vous donne l'information qui vous éduque et qui vous oriente dans les émotions à la prochaine je vous love